sont compris puisque euh, les, les, dépôts, en tout cas, s'arrêtent à minuit. Ça veut dire qu'il faut franchir, euh, pour déposer, il faut franchir le portail avant minuit. Donc c'est très clair. Maintenant, bon, quand vous êtes euh, dans, à l'enceinte et que vous êtes enregistré, bon, ça, ça prendra le temps qu'il faudra en fonction, en tout cas, des équipes que la DGE mettra euh, à disposition euh, du, donc, du personnel électoral. et en fonction également du nombre de déposants. Donc je pense que puisque c'est sur deux jours et qu'il y a un ordre de passage, euh, ça facilitera quand même le dépôt et ça, pense que ça se fera dans la sérénité et dans la transparence. C'est ça le plus important. de quoi Comment, comment va se dérouler ces investitures Bon, les investitures se déroulent euh, bien. Nous avons fait une circulaire euh, pour demander à nos coordinations départementales de procéder à des investitures à la base. Et nous avons reçu euh, les PV d'investiture et les, les, dossiers de candidature. Et dans certains départements, il y a eu des consensus, dans d'autres, il n'y a pas de consensus, mais c'est la démocratie, c'est comme ça. Et maintenant, euh, le parti, en tout cas, euh, arbitrera. Euh, et on en tout cas, l'essentiel, c'est que les meilleurs profils soient choisis. Le plus important, c'est l'enjeu, permettre euh, au président de la République nouvellement élu, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, euh, de pouvoir euh, en tout cas disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour mettre en le projet et le mandat que les Sénégalais lui ont confié mars 2024. Je pense que c'est ça l'enjeu principal et je pense que les Sénégalais euh, vont pour la cohérence et pour la continuité pour plébisciter la liste de la majorité présidentielle. tey euh, ndax bokk rafetlu nu affaire waaw waaw ñoo ngir rafet lu fii ci DGE euh, tirage au sort bi euh, nu mu demee ñoo ngi leen di jaajëfal gis ni tey atmosphère bi ak doxalin bi wute nag lu ñu fi doon gis surtout ci élection présidentielle yi ñu jógee parce que man nekkoon naa fi mandataire waaye mënuma woon jàll bunt bi te yéen journalistes yi yaakaar naa ni ci beneen côté tali bi nañ leen doon parqué duñ leen may ngeen dugg mais tey gis nañ ni euh, ñu permettre leen ngeen accéder ngeen ñëw euh, pour sénégal yi xam lu xew si wàllum élection yi donc si activité bi nga xam ne mooy tirage au bi tirage au sort bi nag gis nañ ni ñëpp ñu bëggoon euh, présenter liste ñëw nañu Euh, déposé nañu dugal nañ ko ci urne bi ci kanamu huissier ñu tiire ko ci kanamu ñëpp yaakaar naa leer na nañ euh, ñun euh, lu jëm ci Pastef ñoo ngi ñëw en trente-septième position donc lu ci am solo rek mooy fexe suñu liste yi ñu déposé ko si délai buñ ñu wax te nga xam ne respecté lu code électoral bi wax yaakaar naa ni loolu moo ci ëpp solo am nañu waaw bon mu doon samedi mu doon dimanche l'essentiel ñun yaakaar naa ni euh, suñu personnel électoral am na expérience ak suñuy responsable yu nekk dans les départements dans les communes yooyu yëpp am nañu expérience élection parce que depuis ñu créé ñu 2014 élection bu fi am yëpp participé nañ yaakaar naa ni bii mooy suñu ñetteelu élection législative donc lu ci am solo daal mooy yaakaar naa déposer des les listes yëpp conforme donc ñoo ngi encourager appareil électoral bi ñu gën a takku gën a en tout cas baral liggéey bi pour que incha allah ñu déposer liste yi nu mu waree donc lu ci des mooy euh, élection yi lu ci am solo mooy enjeu bi fexe ba président de la république ak gouvernement am euh, assemblée nationale ñu mën fa am une majorité ba nga xam ne majorité bu confortable la loi yi nga xam ne moom nañu dige Sénégalais yi ci élection présidentielle bi te sénégal yi fal président Bassirou Diomaye fay loi yooyu ñu mun ko voté euh, soppi réew mi jubbanti Sénégal merci jërëjëf. Voilà. Euh, qui vous a Mes impressions, comme vous le savez, comme le prévoit le processus électoral, il faut venir aujourd'hui pour, euh, pour procéder pour certains à la notification et pour d'autres euh, au tirage euh, pour pouvoir déposer les, les dossiers de candidature. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, ça a été fait, correctement. Ça aurait dû commencer peut-être vers, ils avaient dit, ils avaient convoqué à 10 heures. mais pour des contraintes liées euh, aux mandataires, à certains mandataires qui venaient un peu loin du fait de la pluie, ils ont repoussé le début jusqu'à 12 heures. Mais en réalité, comme vous avez peut-être pu le constater, ça s'est très bien passé. Euh, je n'ai pas vu grand-chose qui ait changé par rapport à l'année dernière. Il y a eu un petit échange concernant euh, l'heure de, de, de, de, fermeture et Euh, des dépôts, c'était juste une incompréhension, mais en réalité, euh, on s'est tous compris. il faudrait être là au plus tard, il faudra franchir la porte à minuit et prendre le temps de pouvoir déposer sereinement. Euh, oui, effectivement, la, coalition dont je suis le mandataire est troisième. on aurait peut-être plus important, c'est de faire le travail en amont. Et une fois ici, qu'on ne traîne pas de temps. Et donc, euh, je pense en ce qui nous concerne, euh, le travail sera fait correctement, avec beaucoup de sérénité et de rigueur, pour pouvoir déposer euh, tranquillement. waaw dañu dañu ñu euh, convoqué woon comme ni ko processus électoral bi bëggee ñëw pour euh, euh, ñu def tirage au sort pour ñi nga xamante ne ni dañu war a Euh, déposé ordre bi nga xam ne nii moom la ñu war a déposé bon moo taxoon ñu ñëw ñu def tirage au sort bon dans l'ensemble tirage au sort bi ça s'est bien passé waroon na commencer à 10 heures et parce que dafa am quelques mandataires yoo xam ne nii dañu amoon quelques jafe-jafe ndax ndax taw bi ñu décoller ko ba midi et donc euh, là la séance s'est s'est bien passée euh, amoon na tuuti benn incompréhension ci. Euh, moment bi ñuy déposé puisque au début euh, le président de la commission ni mu waxee dañu jàppoon ni à partir du dimanche à minuit kenn mënatul déposé mais en réalité euh, rien n'a changé à partir du dimanche à minuit il faut ñi war a déposer yëpp fekk ñu franchir porte direction générale des élections et après ils prendront le temps pour ñu déposé sereinement voilà donc ñun coalition bi nga xam ne nii man maa nekk seen mandataire Euh, ñu ngi nekk euh, troisième position comme nu ma wax sànq euh, xëy na mujj déposé moom la ñëpp di bëgg mais li am solo moo nekk ñu préparer dossier yi en amont avant ñu ñëw fii préparer ko bu baax ba nga xam ne ni boo ñëwee do perte temps bu bëri et donc ça c'est la responsabilité des coalitions et des partis politiques merci.